kilifa nañu ba ñu xam adduna xam administration suñu droit xam suñu devoir loolu tam Macky de lu ko siise Sonko bi jaral ñun lu ko raw jaral nañu ko ñaari geegam ku gis Ousmane Sonko bëgg ko ñuy dem di profito bu jigéen bu innocent Adji Sarr humilier ko yàq addunaam pour lan tuumal Ousmane Sonko loolu lañ ko dul permettre Macky Sall ko dul permettre lu mu ko jaral jaral nañu waa Sénégal ñu ngi nuyu askanu Sénégal di xam ne di ñaawlu lii fi am gannaaw bu ñu jaalee ñi nga xamante ne bi mooy suñu mbokk yi fi bàyyeekoo mu doo jëf joo xamante ne bi du kenn ku ko rafetlu suñu waa ñun sénégalais yi vraiment lii am ni mënoon na ñàkk ci loo xamante ne bi ci diggante nit ak nawleem ci entre euh, ñaari nit ay nit di ci def yenn yi ba lii indi lii doon na loo xam ne kenn rafetlu ko mais na sénégalais yi xam ne ñu ñëpp ñoo ànd bokk ndey bokk bàyyi homme de tenue yi ñu ñëpp suñuy ak suñuy rak mag ak suñuy jarbaat. voilà ba tey rek ñu ngi fi pare de justice pour dakaar mu mel ni nag audition bi pare na ndaxte ñi nga xam ne rek ñoo di député yi nga xam ne ñoo nekkoon ci biir euh, palais bi daal di nañu génn. yi raase ak yi ay ñoñam. population ñi ngi woon di dox seeni soxla di dem ak a dikk mu am lu xew ñu bàyyi seen i soxla na ci lii kon nag loolee indi lii su ko ci gaa yi jógee rek ni ñi dellu ci seen i soxla. ñoom waaw loolu fa ah, Sénégal démocratie la am na ñoo xam ne nañ na démissionné tout de suite am na ñoo xam ne ne nañ na fi ne mais ñun li ëpp solo mooy li xew te tax réew mi eh, liggéeyatu nit ñi nekk ci ay jéeya guddeeg bëccëg ñu fexe ba jële ci réew mi loolu moo ñu ñor fii mu ne waaw maa ngi gërëm jeunes yi di leen sant di leen ñaax waaye di leen waxit ñu moytu Euh, ñi nga xam ne dañuy raaxaloo ci ñoom pour di yàq yàq baaxul. Euh, une résolution et cette résolution là a été euh, par euh, l'opposition parlementaire. D'accord. mais nous invitons nous convions mm. tous les 165 députés mm. à euh, voter cette résolution là mm-hmm. pour des dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale mm-hmm. l'article 51 et 52 qui permettent à l'Assemblée nationale euh, de demander mhm. ou, ou de voter mhm. la suspension des poursuites. Rappelez que l'Assemblée nationale en France, parce que souvent on s'en inspire, 16 mhm. demandes ont été de 1874. Je termine là. Allez -y, allez -y. Je, je, termine et je rentre dans l'aventure. C'est euh, euh, euh, de, de suspension des poursuites. Sur les 16, les 15 ont été accordées par l'Assemblée nationale. C'est pour dire que nous ne sommes pas la justice. Nous ne demandons pas l'arrêt des poursuites, mhm. nous n'avons pas les moyens de le demander. Mais nous avons les moyens de demander la suspension des poursuites, conformément justement à ces dispositions. C'est pour dire simplement au peuple sénégalais que l'Assemblée nationale, si elle était indépendante, autonome, si elle retrouvait sa dignité, sa liberté, a les moyens d'apporter donc la paix dans le pays, comme le veut la société civile, comme le veut les chefs religieux. Nous avons les moyens, il nous faut simplement, en tant que parlementaires, retrouver donc la dignité de l'exercice donc euh, que nous sommes en train de faire pour aller dans le sens donc de la paix. voilà jërëjëf la suspension jusqu'à quand jusqu'à la suspension jusqu'à la fin de la session. Euh, la la la session unique donc juin lay jeex le 30 juin. donc euh, loolu la ñuy loolu la ñu porté ci suñu résolution. dañuy bañ parce que nun du ñu nekk ay nit ñoo xamante ne Macky Sall day tëdd ca palais di ñu napp di ñu ragal nun du ñu ay nit ñu ragal. ndax président Ablaye Wade bi ba tànnee def ma président groupe parlementaire tànnu ma woon parce que ma nekk nit boo xam damay yox yoxi wala may dellu ginnaaw à chaque fois que opposition bi am problème man maa war a porter combat boobu man maa war a nekk ci kanam ndax lan la Ousmane Sonko député la député de l' opposition la. am nañ arrêté nañu ko indi nañu ko fii nun opposition bi député yi àndandoon nañu ma jiite leen ñu ñëw pour ñu gis président Ousmane Sonko bi ñëwee ñu gàntal ñu lool. loolu moo tegewul ci yoon tegewul ci dëgg combat boo xamante ne nag dañuy delluwaat assemblée nationale li nga xamante ne moom la sunu règlement intérieur may danañu continuer combat boobu comme ni ñu ko président Abdoulaye Wade digalee noonu la ko fas yéene defee wasalaam. mbir bi doon topp Ousmane Sonko ci mbirum sàkku dafa sàkku li ñuy wax Adji Sarr ñu koy topp également ci li ñuy wax menace de mort donc bu ñuy ñëwee tey ci bureau cabinet juge d'instruction bi juge d'instruction ci boppam daf ko mettre lu ñuy wax contrôle judiciaire maanaam mun na ñibbi mais day respecter yenn condition condition yooyu mooy dafa war a ñëw chaque fois di signer ci benn registre donc ñun suñu jëmm en tant que défendre la rek léegi li ci des kilifa yi ak population bi ñoom ñoo ciy décider ñun lu ñu mën a wax ji Ousmane yaakaar naa ne na mën a seet donc am na solo euh, maître mu ngi dem jàkkaarloo ko ndaw voilà maître Clédor moo nekk noonu dem pour wax ak bi xamal ko ne xamal leen ne libéré na ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko. tey Sénégal yëngu na maître Clédor kay. la volonté populaire a eu raison. il est chez présentement il est parti en homme libre. il était venu en personne envahir. Il n'était pas libre de ce mouvement. Il est reparti ah. triomphalement. Maître Cléto. Maître Vive la démocratie. et vive l'état de droit. fii ñoo ko moom bu mel nii rek jeunesse bi am na ndaw am na ndam sax laay wax ci kaw ñi nga xam ne ñoo di njiitu réew mi voilà Sénégal yéen a ko moom te buy dëgg vive la jeunesse lu daw na yaram daw na yaram waa tamit neex na ci xol ndax ku gis ndaw yi nga xam ne mbégte rek moo nekk ci seen xol ba ñu koy wone ci seen i xar kanam voilà mbokk téléspectateurs yi ñoo ko gisandoo ñu ngi woon fii nag ci tribunal bu Dakar li nga xam ne moo di mbirum Ousmane Sonko mu mel nii rek daal dina am nag li nga xam ne liberté waaye terewul rek yoon mi ngi topp ci ginnaawam lii nag mooy wane ne c'est Sénégal qui gagne Sénégal dëkku teranga la kenn mënuñu ko xañ ñi xam ne nag ñoo di jeunes yi kontaan nañ ba di ko wane seen mbégte ci ginnaaw comme ni ngeen ko gisee. actuellement dañoo kontaan parce que fu mu ne nii maam dëkk bi léegi am na jàmm quoi Sonko fu ñu ko bàyyiloon day gën a yokk quoi. kontaan nañ trop mais xale yi fu mu ne nii kontaan nañu des na ni ñu jàppoon nañ leen bay combat bi day continuer mais réew mi moo ne fi ne liggéey suñu xol seet na ci yéen ñun Sénégal mu ñor jàmm jàmm ci leen lépp xej moo tax jeunes yi fi mu nekk nii loolu lañu ñu comme ni ngeen ko gisee suñu kii ndaw yi nag teg nañ seen espoir yëpp ci ki nga xam ne moo di président Pastef bi di Sonko. président Sonko ndaw yi bu ñu lay xool dañuy gis ci yow ki nga xam ne moo di Thomas Sankara bu ñu lay xool dañuy gis ci yow Nelson Mandela bu ñu lay xool dañuy gis ci yow ki nga xam ne rek moo di Cheikh Anta Diop. gella yow président Pastef Ousmane Sonko ndaw yi nga xam ne dañoo teg espoir ci yow boo yéegee nang leen sigil nang leen sargal ba bu leen rusloo. li nga xam ne jot na fee am bañ fee amati deret bi tuuru na bari na. voilà mbokk téléspectateurs yi Equivox TV comme ni leen ko waxee woon rek jóge nañ fi nga xam ne moo di tribunal ñu ngi fii nag buntu kër Ousmane Sonko maanaam sax ci